Euh, gërëm bu baax euh, responsable politique yi nekk euh, Benno au niveau de Grand Yoff comme koy chaque année pour appuyer population commune Grand Yoff rawatina ñi nga xamantene loxo jotul ñuy président de la République Macky Sall bi nga accompagner population bi au-delà de projet yi nga Euh, tey sociale dafa nekk une réalité dans notre pays solidarité dafa nekk une réalité dans notre pays rawatina nag bu ñuy euh, waajal fête bi nga xamante ne mooy feetu tabaski nga xamante ne euh, famille yëpp tey dañuy jànkonteel ay ay jafe-jafe pression sociale bi bari na parce que ku nekk ci ñun rek am na ay mbokk yi nga war a jàppale loolu moo tax solidarité boobu nga xamante ne dañu koy def chaque année

alors tey nag appuyé nañ presque 500 familles ci ci commune bi euh, donc ci kit yooyu wax donc euh, pour nous leen permettre ñu fêter donc euh, tabaski bi dans les meilleures conditions. ah loolu neex na mbetteel la mbetteel bu neex la waaw mbettel bu neex bu sedd suñu xol machallah waaw suñu xol sedd na guy ci Cheikh Bakhoum waaw ndax li mom sedd na xol waaw. contane nañ daal ndax Cheikh Bakhoum moom bàyyiwuñu benn yoon ñun wa Grand Yoff. mi ngi nuy dimbali mi ngi nuy jàppale lu mu am mi ngi mi ngi dimbali bu baax kon nag ñu nit ñu ngi ci ginnaawam bu baax a baax waaw lu mu nekk nag ah sunu xol sedd na ci guy nag macha allah waaw ndax du dul dara rek koor gi rek defal nañu lu ëpp lii kon sunu xol sedd na ci moom waaw bàyyi wuñu benn yoon kontaan nañ bu baax ci seex Bakhoum waaw. Ah, kontaan rek ndax dañuy jàppale nit ñi instant yi xam ne dëgg bi dafa metti kontaan si leen si trop di leen si sant di leen si gërëm nag yàlla jàppale nag lu ñuy wut yàlla nañ ko am ah xanaa di ko gërëm rek di ko gërëm di ko sant yàlla na ko yàlla jàppale si lu muy wut incha allah rabbi